Bienvenue sur Salam Vision. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil umi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billah bismillah na wala yàlla mbokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre seen bi nga xamante ni mooy Salam Vision ñu ngi am mbégte dellusiwaat ci suñu beneen jotaay fas yéene ci ànd koo xamante ni xëy na ñi nga xam ne yàgg nañu ci chaîne bi tam miin nañu kanamam miin nañu jëmmam ñu gën ko xam ci soxna yaa Zeyda Ka doon itam wax dëgg yàlla suñu jigéen suñu xarit suñu wëllëre mhm. yàlla tam dogaloon ñu bokkoon bërëb buñ daan liggéeyee mhm. ni ngeen ñuy faral ñu koy déggee saa su ne di ko wax rek mhm. ñii ñuy jëflanteel ñëpp du àndu tey àndu démb la woon Mm-hmm. àndu ngor la woon mm-hmm. àndu nawle la woon mm-hmm. loolu moo tax ba tey jii kenn ku ci nekk mën a yor sa numéro morom kenn ku nekk di nemmeeku sa morom waaye kenn ku nekk itam di saafonte ak sa lépp loo xamante tam jëm na ci loo xamante ni lu la ñu ngi koy bokk di ko àndandoo ñëpp kon moo tax saa ne bu ngeen ci gisee tamit xam na ni du jàmbur ci ñun defuñu promotion pour utal ko ay client déedéet waaye kenn ku ci ne ci ñoom am na lu yàlla def ci jëmmoom donte kenn ku ne xam na ni ku yàlla bind rek am na lu mu def ci yow waaye ñoom ci wàll yu ñuy yëngu ndax buñu nee soxna Zeyda Ka ñu xam ko bu baax yàgg koo gis ci internet yi yàgg koo dégg ci rajo yi waaye ku ko miin itam miin waay juram bu góor gi nga xamante ne wax dëgg yàlla mu ñàkk ko bu yàggul nu ko ci ndokkeel di ko ci siyaare bu baax a baax di ko ñaanal tam bu baax a baax fa mu tëdd am nañ ci njort lu rafet am nañ ci tamit yaakaar ak xel mu dal mu xam ne fi ne moom wax dëgg yàlla dañu ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo am sañ mën ba mën a def lu mel noonu mu taas ñu moom ci barkeem waaye ñun wér nañu góor ga am na barke te barke ba tam képp ku teew ci keroog ca bésu dencam ba wala ca ñaan nga xam ni tamit barke a nga ca moom ndax barke boobu tey ji moo wesaare ba yëg ci njabootam kon soxna Zeyda ñi ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay dalal ci biir jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro waaye tam di la masawuwaale suñu waajur woowee nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk wax dëgg yàlla waaye gannaaw gannaaw yow da di jigéen te ñëpp ñu xamoon fi mu la féete woon xam fi mu la tegoon xam ni tamit la daan séq ak yow ndax du benn yoon lañ ko gis du ñaari yoon lañ ko gis kon li ñuy waxee tamit wama shahid naa illaa bi ma alim naa kon ñu nuyu la ziar la waaye ziarale mbooleem internet yi nga xam ne ñu ngi ñu teewlu à waaye à travers tamit TikTok bi moom itam ci chaîne bi nga xam ne tindi mooy TikTok bu yaa Zeyda Ka macha allah rabbi ñu bàyyi la kàddu gi aouzu euh, maa ngi nuyu àdduna wërngal képp képp koo xam ne salaam Vision di bàyyi xel TikTok yaa Zeyda bi nga xam ne ku xool xam nga ne gëj naa cee dugal ay émission waaye di wax ne Salam Vision moom mi borom mi dafa bokk ci suñuy ndoorteef waaye may wax ne inna wa inna ilayhi di wax yàlla moomu mayoon sama sama wayjur wi nga xam ne daf ma bëgg lool ma bokkoon ci ay tànneefam mm-hmm. mu may ma ko ma dund moom lépp luy neex-neexu xam-xam mhm. lépp luy neex-neexu àdduna mhm. lépp luy neex-neexu waajur bu góor mhm. ma koy ñaanal yàlla fi mu tëdd yal yàlla yokk ay xéewalam yal yàlla yeesal njéggalam ndaxte nit ki moom yërmaane yàlla rek la am njort ci moom te dëgg yàlla njortu rafet na macha allah taxawaay bi rafet na wallaay lazim ñi nga xam ne la yaakaar muy waa kër Cheikh Ibrahima Niass Baye taxaw bi rafet na mhm. biñ ko dencee biñ koy xaar koor bi di jóge France mhm. bàyyi faal yi nga xam ne séqu nañu jàmm sikkar mu bëgg ko lool. Mhm, tudd yàlla billaahi fanaan ci buntu kër ga. ndeysaan di ko sikkaral. Mhm. di ko sikkaral baatu laa ilaha illallah lañ ko teeroo. moom lañ ko dencee. Mhm. te ne xam na ne laa ilaha illallah muy dara amul lu dul yàlla. ko ci kennam gi. ko ca la nga xam ne dara amatu fa. muy dee te ne xam na ne dee moom la yàlla njëkk a bind. ci dund kon dañuy wax kullu nafsin saayixatil mawt wax dëgg yàlla. métti na nag. Mm-hmm. waaye dafa mujj doon bànneex. ndax soutien yi nga xam ne am naa ko. Mm-hmm. nit ñi ma jege soutenir ma. Mm-hmm. borom xam-xam yi nga xam ne ñëpp ñu may taxaw. yu bëgg li ma doon fuuglu ci sama papa. pour ba xam ñu ngi koy sensation boobu maa ngi koy yëg. alhamdulilah loolu dem sant naa ci yàlla bu baax. ndax nit ñàkk na waay juróom. handicapé. nit ñàkk na waay juróom luum. nit ñàkk na waay juróom AVC. kon man li ma doon xel ñaar ci sama xam-xam. Mhm. yàlla dogal na loolu demul. Mhm. sensation bi mi ngi ci man. Mhm. ba bu ma toogee ci rawdaan bi ndax ci jàkkaam lañ ko denc. ndeysaan macha allah. ci lañ ko denc. ci jàkkaam lañ ko denc. foofu chaque aljuma dañ fay xadara. naasiril xaq bil xaq day jiit. laa ilaa illallah day jiit. te bàyyi na fi loo xamante ni ay sarax yu ñu continué la. yoo xam ne yu ñu continué la. macha dégg nga. macha allah kontaan naa trop ci sama way jur bu góor waaye képp koo xam ne rek ñàkk nga sa way jur maa ngi la koy jaale mm-hmm. di dellu di nuyu travers le monde mm-hmm. parce que dama naan salaam yow mm-hmm. maanaam yow mi nga xam ne yaa jàkkaarloog man di jëflanteeg man li ñuy wax teqatal dafa doy waar waaye wàññi boo gis benn la commencé mënuñu tëb benn te mënuñoo ñàkk wax ci yow ndax wàllum presse man xaw ma ko yàlla dogal na bi may door a dugg ci presse. Mhm. di nekk rajo Safira rafet Dakar. yaa fa nekkoon suñu jëwriñ. di ñu taxawu ci lépp nag. rafetal liggéey bi lool. macha allah ba yàlla dogal tey dégg nga li ñuy wax sore day am. Mhm. mais yàlla bu boole nit ñi par internet. dëgg nit ku nekk mën nga taxaw fu la neex di jokkoo ku la neex. kon dee leen jokkoo ci jokku jokkuwaay bi. Mhm. wax ju rafet nañ koy waxatal. surtout taala li ma gis ci jamono dafa ñaaw. tëddante rek la Sénégal bi waxtaan. Oh, oh. awra rek tëddante. sëriñ bu bëgg a fël sax dangay nekk yëfi caga. Mm-hmm. sinon mbaa nga nekk ci góor jigéen ñi. nañ dellu ci suñuy valeur. Mm-hmm. surtout dañoo réer suñu bopp ñun. léegi xam nga li xew. Mm-hmm. boo taxawee ci seetu sax doo gis sa bopp fa ngir lëndëm lëndëm yooyu fanaanoo mbaa wor gu la sa mbokk di wor. mbaa yàqal gu la góor di yàqal. mbaa nga yaakaar jëkkër mu wor la. mbaa jëkkër yaakaar jabar mu wor ko àddina bi salfaañoo na waaye nañ dellu mm-hmm. ci baat bi rek laa ilaha illallah dara amul lu dul yàlla dégg mm-hmm. loo bari la bari la romb loo moomul mm-hmm. xam nga dañ daan wax gor sekk waaye léegi gor sekkere moo amatul gor sekkere amatul du olof de olof dafa doon wax gor sekkere looloo taxoon ñu naan gor sekk ku munta denc wax mm-hmm. munta def lu baax mm-hmm. ku munta denc wax munoo am baatin munoo koo saxal maa ngi jéggalu bu baax nag loolu ay ay soññe la ay li ñuy wax leçon du jour la mm-hmm. parce que duñ dañ di jàngale macha allah ndax loolu lañ ñu xamee wax ju rafet rafetal te gis nga wax dafay faj moo tax suñu boroom tàmm yàlla bu ne woon tell asamaan si ñu bëri tiit moo leen rey ñu dee dafa tànn yonent bu nekk rek am na téere mhm. téere bi wax lañ ci bind mhm. kon wax jooju yàlla tàng di ci wax mhm. jox ñu ñun làmmiñ ñuy wax ku ne di dégg sa morom li muy wax rek waaye na ñuy wax njariñ te koy rafetal macha allah mu doon lu am solo ajaratu soxna Zeyda Ka macha allah ci nuyoo boobu ni nga dugg si am na solo ndax nuyoo nga saakonte nga ak àdduna war nga këpp yàlla ndokkeel nga ñëpp itam ci masawu tam li nga xam ne moom lañ la doon masawu muy suñu waajur woowu nga xamante ni fi ñu wax dëgg yàlla dafa noppalu ji ndax ku ne xam na ni moom àdduna bi mu nekkoon daaru duniyaa gi mission la fi doon dox ndax koo xam ne mësta toog fenn fu mu ne fu ne yàllaa ko fa baax ndax ci ndigal suñu borom rek la doon dox te loolee tamit wér nañu xam nañ ci dara kon wax dëgg yàlla moo tax ñu am yàqin am njott gu rafet ak yaakaar ni maanaam ñun dañuy ñaan suñu borom taas ñu ca barke ndax barke moom am na ko kon macha allah rabbi waaye fi nga fi nga fi nga fi nga jeexale itam dafa am solo lool muy soññaat nit ñi leçon du jour muy maanaam wax nit ñi ñu bàyyiwaat xel ni dara newul fii ci àdduna dul suñu borom subhanahu wa taala kenn newul ci àdduna ko dul yàlla suñu borom subhanahu kon lu waay mën di def ci àdduna nga bàyyi xel suñu borom te suñu borom ku ko mënta gis mënoo jot ci moom itam jot ci lim fi baax muy li nga wax léegi muy alxuraanul karim bi téeréem bu bi nga xam ne dara du ko féete kaw te boo ko ubbee ci baat yi nga wax léegi muy kalimatul àq gi nga xam ne mooy dëgg te moo njëkk te moo mujj moom la ci moom la ko tënkee rampacce ko ba mu jeex tàkk kon mu doon lu am solo macha allah bi ñu ci amaan mbégte bu baax a baax waaye di wax ne tam ñun ñoo gën a bég ndax fekk si bi ñu la fekk si wax dëgg yàlla mooy li ma ko waxee ci njorloon fekk si wuñu jàmbur fekk si wuñ ku ñu xamul waaye fekk si wuñ itam koo xamante ni wax dëggal dañ koy defal promo mm-hmm. di woy sama baay ma mm-hmm. juddu nekk ci lii mm-hmm. kon promotion weesootul lool ndax bu dee di woy sama baay bi nga mm-hmm. juddoo nekkoo ci bu mm-hmm. boobaa mënees na laa defar waaye bi nga juddoo xamal ngir loolu te ci loolu la nga tënk boobu ba tey jii ko dañu ñaan suñ borom lafal la catkaar macha allah rabbi mm-hmm. mboolem yéene ne sa waajur wa amoon na ko naaloon ko donte mënoo ko waaye di nga ci jéem teg sa tànk ndax am naa lu ma xam ci yow akas xam naa fi nga ko tegoon mu mu bëri xam naa ne ñàkkul lum la ci dénk te di nga ci jéem a teg sa tànk yàlla yàlla suturaal aar la sàmm la ba nga yéggale ak sa sago ci daraja yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wax nga ko léegi jamono doy waar jaxasoo lool nit ñi jël àdduna bëgg ko teg ci kaw dëgg. dëgg mooy li fi am. Mm. yàqante. Mm. waxante. Mm. defante wane yoo xamante ni kenn daawu ko gis ci àdduna. te tey bu ñuy wax internet leçon la war a doon mooy ni nga ko waxee nii. Mm-hmm. bi ñu amee jumtukaay yi ba noppi. dafa méngoog jamono. liñ ci waroon a def mooy fexe ba di rafet di ci wane jëf yu baax. di ci wane jëf yu rafet. ngir mën a soññ suñu bopp soññaat ñi nga xam ñoom la ñu am mais tey ji lan moo dal askan wi ba ñoom mënuñoo dem ci loolu ludul di wane safaan bare macha allah li dal askan bi mhm. dañ na ko jar ak seeni bët te bañ ko xam mhm. mooy damay wax ci samay wax ne boo daan dox guddi bu njëkk mhm. mag ñi dañ lay wax moytul bala ngaa jomm waaye léegi dañ naan la moytul bala laa agresseur yee dal kon rab yi ñoo possédé agresseur yi rocc jam da gis ku rey nit sax fukki dërëm du nekk si poos yi da ngay gis ñaari xarit yu ànd guddi ak bëccëg guddi jot lendemain ba jot ñu xeex rayante kon rab yeeg dëmm yeeg jinne yi dañoo possédé nit ñi mm-hmm. dégg loolu nag li ko waral ñàkk kaaraange ci la bokk ndax da daan gis ku ëmb mm-hmm. di wut kaaraange ci biiram mm-hmm. wasin di wut kaaraange ci biiram doom ji di fer ñu ne nañ ko yóbbu ci kilifa diw mu ñaanal doom ji di dugg néegu góor ñu ne nañ ko ñaanal booba way jur yi nga xam ne yaa foo suñu tubaab bi sono leen loon lool mhm. waaye bàyyiwuñu xam-xam ñàkkuñu kilifa dañ daan aar doom ba nga xam ne doom dafay dem ba nekk maam sax mhm. wayjuram di ko aar loolu nag moo amatul mhm. ñàkk kilifa it ci la bokk ndax ku ne xam na ne bëy kéwél ba mu jommee ci àll bi daa dem ne bëy man de maag yow a tolloo ñoo nuroo waaye man fu ma génn aw rab dàqe béy na ko xam nga man lu ma muccal mhm. damaa am kilifa su ma doxee lu mu guddi guddi sama kër kilifa laay fanaan kon ñun ñaar ñàkk kilifa moo ñu wuccale mhm. yaa ngi dégg jamono ji li ko yàq ñetti baat yi ñi ci la bokk mooy mag ñi sàggan nañ léegi ci xale yi mhm. démb rek maa koy seetaan kilifa bu mag mu ne nañ def attention ci ne xale yi nañuy respecté mag ñi léeg-léeg ñu respecté loola mag mu dof respecté loola mag mu dof waaw laay laay la laa waxe nitam ngoog de waaw démb rek maa ngi koy dégg ndax man du ma dañ ci di gëstu xam-xam mm-hmm. du ma dañ di waxtaan ak ay kilifa parce que loolu noonu mooy li nga xam ne mooy li lay jëriñ moom moom lañ la sas yow mm-hmm. nekk yow doomu aadama en mm-hmm. tant que être humain parce que gannaaw bi nga juddoo am na ku la jiitu am na koo jiitu kon ki nga jiitu na la wan li ci kanam yow ki nga jiitu nga gersu wan ko sa gannaaw waaw àddina bi daal dafa ñàkk communication mm-hmm. ba pare ñàkk na tamit éducation de base parce que boo seetee majeure partie même télé yëpp nag mm-hmm. même débat bi la ñuy def surtout même débat bi loolu daal wax dëgg yàlla li xale yi di wax yaana maar mm-hmm. ñu ngi ciy bëgg a sonn nañuy wax xam-xam di wax luy jëriñ askan ndax xam-xam boo ko mënee denc ko jëriñoo yowmal qiyaam day nekk xal mm-hmm. di la lakk kon wane xam-xam wala wax xam-xam loolu force la mm-hmm. neexaluñ ci ki ko xam waaw en tout cas fi ne daal jamono moom fi mu toll nii moom doy na waar te euh, wax yàlla fi ne dafa dema a dem a dem ba nit ñi fi ne dafa mel ni damaa jàpp ne xamatuñu fu ñu jëm xamatuñu li ñu war a def mm-hmm. waaye bokk na ci fi mu ne yaa Zeyda euh, tey jii góor gi bi mu wanee ginnaaw ñu xam li fi newoon na li bees loo xamante ni tey jii su ma la ne woon tey yaa moom nga jëlee ci góor gi mm-hmm. loo xam ne pare nga jam taxawu ci doomu aadama yi dimbale leen ko mm-hmm. moom di nga ma ne man mi ngi nii ma yor wallaay donte xam naa ni dara mosu fee jóg nag nag <laughs> ndax ndax mu ma sa doon sa loxo wallaay góor gi moom damay sant yàlla bu baax ci moom mm-hmm. ndax sama tàggatoo ak moom dafa yéem sax suñu waa ni ko yàlla dogalee ak ni ma tàggoo jour bi muy dem bitim réew dégg ci baat yi ci jëflante. ci mm-hmm. kaf ci bëre ci reetaan. noonu laa tàggoog sama papa. gis nañ fi ku xuloog waajuram mu tëdd yeew waajur wi dee. Mm-hmm. gis nañ fi coow am ci kër. góor ga naan noppi leen noppi leen ñu bañ mu daanu de maa ko gis bu yàggul gis nañ fi doom ju rey waajuram mm-hmm. mais sant yàlla bu baax bi nga xam ne man sama pàpp bi ma koy tàggu mu ngi ree maa ngi ree ñu ngi bëre ñu pare wax ci baatin wax ci ay dénkaane mm-hmm. sama xol dafa sedd ci loolu te yàlla daf ma ko tàggatal nag mm-hmm. parce que lu naturel la luñ doon dund man ak moom gannaaw ku ne da ngay dem mm-hmm. waaw baatinam nag wax dëgg yàlla moom góor gi moo ma njëkk a wax ne mbanaat mbonaat du nàmpal day xool doomam mu suur loolu dañ ciy jëflante ba tàyyi démb démb rek am na commissaire bu mag bu ma woo mhm. boo xam ne daf ma fàttalil ne moom sama wóllëre papa te dañ ko wax ne ko góor gi li nekkoon ci moom mi ci doom ji mhm. moom mu def tout pour jokkoog ma loolu démb démb la ma ciy sant bu baax wax dëgg yàlla mhm. muy wàllu baatin moom alhamdulilah ragaluma ci benn góor nag ku dul góor sax ragaluma la ci ndax góor gi teg na ma fa ma daan teg te dama sant yàlla bu baax ndax yonent bi mu génnee àdduna mhm. toog nañ juróom benn weer xamuñu kan moo koy doon mhm. Fatima moo toogoon dégg moo tax kuy wax ni jigéen amul cër xamoo li ngay wax mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag li nga xam ne nii yàlla jëf na daal mhm. alhamdulilah jëggaaniwu ma dara waaw te olof tamit nee na ku sa reeru baay doy ah, doo tala bañ lay bëmax loolu daluma jigéen ñi daal mhm. képp koo xam ne soxla nga ndimbal mhm. kaaraanga ci sa sëy mhm. ci sa bopp wàllum cat làmmiñ wax dëgg yàlla am nañ ci baatin bu wóor a wóor te ñu ngi ciy jëflanteek nit ñi ñu ngi gis bu baax a baax ndax àddina bi moom gannaaw li ko sàkk góor ak jigéen la kon ku ci nekk soxla nga góor gu wér jigéen gu wér ngeen mën a am doom yoo xamante ni yàlla da leen di defal sutura ba yenn feebar yi du leen faral di dal. macha allah mu doon lu am solo yaase ga mu doon kàddu yoo xam ne am na solo loolu te ñi nga koy wax fi wax dëgg yàlla ñi ma koy wax rek am na luñ ci xam. Mhm. waaye bokk na ci tam damaa gis ni wax dëgg yàlla euh, euh, Zeyda yoroon na yëfi boppam waxatuñ ko woon. Mhm. mais tey jii dama gis nga teg ci sa kanam ay mbir. Mhm. bokku na ci gën gi. xam naa ne gën mbir la. waaw gën gi laa bëgg xam sabab bi. ci lan lay yëngu moom ndax xam naa mbooleem alxuraan ji waxaalewuma ko ndax ñu ngi gis ci tàmbali jotaay bi mm. yaa ngi yor di bind alxuraan mm. kon mbindum sëy naa waxuñu ko mm. li sëy daal di bind tamit waxuñu ko loolu moom xam nañ ci dara ñi la yàgg seetaan itam xam nañ ci dara mm-hmm. waaye yenn yenn yenn yi nga teg ci sa kanam laa bëgg benn bu ci ne nga wax ma njëriñam mm-hmm. ndax damaa gis li nga fi teg yëpp mm-hmm. yëfi mag la loolu mooy li ma xaw a yëm dëgg la yëfi mag la dëgg la ceeb mi mag ñee ko daan def ci ndaayee njaq yi fi di ko naan dëgg la këll gi tamit am lu ñu ci def nii ak ndoxam ba mu tege nii tam xam naa ni yëfi mag a këll mag a mhm. waaye nga teg gën ci ginnaaw te gën mhm. moom buñ ko xamaan lu ci bëri bëri bëri mhm. ci waañ lañ ko doon xam wala ñu ni gën gañ daan xarafale nu baal ma ci kàddu yi waaye ci jamono gën lañ daan xarafale dëgg la léegi gën gi laa bëgg xam moom njëriñam ak ci lu muy dox waaw gannaaw bu ñu waxee ci lenn li nga xam ne wàllum jàng la alxuraan la asraar la am na tamit xam boo xam ne wàllu pël la man maa man man maay jëf loolu hmm. boroom xam-xam buy tiitaru nii sama kanam dama lay bàyyi ngay cëpp cëppi def lu la neex fekk li nga xam ne moom da koy baaxal ci benn waxtu wallaahi ci mocc ak yëfi pël ak ay tettal hmm. mën na ko liggéey ci cinq minutes hmm. yaa ngi dégg xam-xam boobu dama ciy am gën gi li muy dox mooy aar suuf lay dox boo amee sa terrain bu rëy bu bari coow. Hmm. buñ jëfee li ñuy jëf ba pare ci biir gënn gi lañ koy def. nga yóbbu ko ba ca béréb ba suul ko fa. yaa ngi dégg loolu lay dox. Hmm. te dama lay waxal ne la pël suñu mbokk pël yi. Hmm. dañuy yor ay millions ci gétt te ay bant lañ koy wërale sàcc du ko laal feebar buy rey gétt gi du ñëw. yaa ngi dégg. lépp loo xam ne luy lore la. te pourtant ci bant yi lañuy ñuy wërale rek teg ci digg suuf si lañuy liggéey la ñuy liggéey def fa liñ fay def bàyyi ko mun a tegg nag aar boppam aar léppam parce que alal dañ koy ñàkk alal te jamono ji ñu toll nii coowal suuf dafa bari lool dégg nga sa bàyyi moomoon lii ñu nangu ko sa hmm. maama moomoon lii ñu nangu ko doole ñu man ko di ko wan nit ñëpp képp koo xam ne am nga problème boobu suñ ci jëflantee ba d'accord ci liñ la laaj hmm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax loo gis tamit am na njëg hmm. waaw ah, na leer loo gis am na njëg hmm. waaw leket tamit yàlla ku ne xam na ne yàlla may na ma ci ba nga may door a ci wàllum presse ba ma toogee di seet nit ñi dañoo taxaw di ma seetaan di xool lan laay xoolee waaw <laughs> dama ci def ñuy sangu dama ciy lekk léeg-léeg bu ma neexee. Ah, waaw lu nekk daal dañ ko ciy liggéey. Mm-hmm. mais gën gi moom képp koo xam ne soxla nga kaaraange dëgg ci sa kër. Mm-hmm. da koy wut. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. moom daal da dul sax na jëfi gone kon fi su ma la déggee parce que li ngay wax ni ku dugg ku yàgg a dugg ci àll di nga gis ci benn kër wala ci benn da ngay gis bant yañ ko laa la wax dañ koy gis gétt da ngay gis benn nag boo xam ne un million lay jar mhm. nag ba am fa nekk fa ñaar fukki nagam ak morom moom kese la ñuy sampal est-ce que tabax kenn du tabax gétt laa la bëgg a wax kenn du ko tabax waaye dañuy aar waaw këy dañuy samp li ñuy def ci biir gétt gi wis ci garab goo xamante ni ndeeta du dugg ci biir xam nga léeg-léeg da daan am mhm. nit bu la bëggee toroxal day romb sa gétt sànni fa dara su jëlul bagage yi tamit dañuy dee di wàññeeku mhm. comprendre dama lay wax lu doy waar dama dund ci àll bi ko gis sa comprendre moon réalité bi nu mu dama lay waxal lu loo xam ne du mbindum alxuraan du jat ñaari mbir kese la te day tojub dëkk day yàq gis nga garab gu sax ci armeel mhm. boo ko jëlee wal ko ba mu mokk am na benn xeetu gunóor buñ koy boole place buñ ko toj borom dootul jaay dërëm ni armeel ba di wéetee noonu lay wéetee dafay tëj yaa ngi dégg <laughs> kon xam-xam am na mais nëbb na nëbb goo xam ne mhm. mais nag li suñu jawrin bi di wax euh, Cheikh Ibrahima Niass Baye nee na xamal bi lëndëm xamal bi leer téye ko mhm. ndax àddina dafa doy waar nit mën na ñëw indi loo xamante ni daf lay lor su fekkee ne xamoo ko woon wala jàngoo ko woon euh, dangay xaw a sàggan day xaw a doy waar dégg mhm. mais yàq am na defar mhm. am na mais xamal lépp teg mooy dëgg fagaroo gën faju waaw fagaroo gën faju wallaay nii rek ak wàllu jat li ma ci mën man mënuma koo wax te pourtant doxewu ma ko waxewu ma ki gën a tiitaru ci xam-xam nag laa gën a mën a lor waaw dafay dal surtout yenn góor ñi defkat yi ak jaay taarif yi surtout yenn góor ñi surtout yenn góor nii man dama koy wax chaque jour de man teguma benn jigéen défense man góor ñi laa bàyyi xel de xam nga suñu sëriñ bi dafa ne ay jigéenam ay góor lañ ay mm-hmm. góoram ay xeer lañ man baat boobu laa teg laa teg baat parce que li ma gis ci jamono ji ay jaaytaar laa fi gis mm-hmm. sëriñ yuy wangu juutoog sëriñ yuy tàppasante ku ci wax di dajji dajji mel ni comme si dañ laa jox pour nga tagg maam diw est-ce que comprendre est-ce que demeewul noonu li waa ji waxoon wax waxi jàmbur jar na xoogal yi mbagg waaw dëgg yàlla waxi jàmbur waxi jàmbur yow boo waxee ci sëriñ Touba fekk nga sëriñ bi bind na lépp wax na lépp boo waxee ci yonent bi fekk bind na lépp wax na lépp Cheikhou tigaan bind na lépp wax na lépp léegi nettali waxi jàmbur lu ci jar réyal sa dara di jaag jaagi lu na nga def ko nañ waxante dëgg nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy embêté vraiment. parce que Sénégal tamit pratique daf fi xaw a manqué. Mhm. théorie moo ëpp. Mhm, waaw man ku ma xool xam ne ci samay samay émission jot gu bëri sax aw ko. Mhm. yaa ngi dégg. waaw dafa am loo xamante nag mënut a ñàkk. ndax il est temps foog ñu wax ndax ku ne man dama koy dégg. Zeyda papaam gaañu na faible na moo non jeexal na dama leen di wax moral beeg charisme beeg. don beek lépp mi ngi fi li dal ñëpp ma dal gën a métti la amul gën a bees la moo amul yaa ngi dégg mm-hmm. kon nag dañuy sant yàlla di wax ne képp koo xam ne nii mm-hmm. danga am lenn looy laam-laam mm-hmm. si ñel kenn du ko rëkk de waaw si ñel kenn du ko rëkk <laughs> macha allah soxna Zeyda Ka moom la ñu àndal ci biir jotaay bi wax dëgg yàlla ci biir Salam Vision ci seen jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro waaye itam man leen en même temps ñi ngi nekkaale itam ci live bi ci page am bi nga xamante ni mooy yaa Zeyda Ka macha allah euh, dëgg yàlla ñoom ñi ngi fii ñi ngi naan jàppale ma ma sœur seetal ma ñoom Mor Sène ak gaa ñëpp wax dëgg yàlla man leen nag nañ xam ne da nga nekk ci live mhm. live bi jotaay bu ñuy waxtaane mhm. ndax mooy ni nga ko waxee fi nga daanele sa kaddu léegi mhm. waajur ko ñàkk ku ne xam ni li nga mm. ñàkk métti na mm. boobaak léegi nga toog xëy na di dund li ngay dund mm. intérieurement de ta personne donc kon kenn ku ci defoon ci aboon daf ci waroon am njottu lu rafet ak yaqin ku rafet ak soulager la ak ñaanal la waaye fi mu ne toog fee di wax naka sunu noonu wala di dugg ci yoo xamante ne warul rawatina suñu suñu suñu mbokk góor yi moo mm-hmm. wax dëgg yàlla lu mën a ñàkk la loo xam ne wax dëgg yàlla moo tax waaye yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci laaj bi tam tàmbali leen ko suivre parce que dafay jëlaat ay activité dégg ngeen ko ni mu ko waxee ba ko mhm. nee na moom ñu ne amul ni gën a métti la nekk mhm. gën a bees rek moo fi nekk mhm. ala yàlla leen tat ñëpp gannaaw ñun ñu fekk ci siraatal mustaqim defe naa loolu mooy li nga xam ne moo ko solo te ñu continuer suñu activité ndax liggéey ak jaamu yàlla moom fii la ko suñu borom ko fi te fi lañ ko fekk te fi lañ koy yaa di fas waat bàyyi waat insha allah bu yàlla yaa ci wàllu ngóora ak jigéen ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ni ma ko mën a tuddee mooy parce que tey jii ni yaa ngi koy wax léegi sëriñ su góor ñëpp góoroo la ñuy waxtaanee. Mhm. di ci wax wax yu doy waar yoo xam ne àndatul ak teggin. déedéet man dama jàpp ni est que tey jii du du loolu bokkul tey jii ci li nga xamante ni mooy pousser tey jii population bi. ñu mhm. gën a xirtewoo parce que ku jóg léegi ne mën naa def ngóoro mën naa ngóoro mën naa ngóoro. waaw waaye xam nga waxtaanee faj. Mhm. ak waxtaanee mboosoo du benn. waxtaanee faj. contre ma ko. ndaxte da ngay faj da ngay leeral. képp koo xam ne yàlla boole na la ak moom mm. sa jàngoro wéree ci moom sant yàlla la falilahi mm. alhamdu loolu bokkul ak mm. wax yu sew yi nga xam ne moom lañuy ñuy boole ci suuf comprendre nga damay faj ngóora mm-hmm. chaque jour nga dégg ma ne la képp ku ko judduwaalewul mm-hmm. soo ñëwee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañ la koy fajal am nañ bépp jigéen boo xam ne yow sentiroo sa bopp mm-hmm. ci li jigéen li ñuy wax lépp loo xam ne dafay jublu ci mbirum intime jigéen dama ciy mm-hmm. yëngatu waaw ñu bëri xam nañ ma mm-hmm. ñi nga xam ne doom tëna leen dañ fi ñëw yàlla mm-hmm. dogal ko su fekkoon dama soxla luy weeru kon nga xam ne lépp dëgg la <laughs> macha allah mais fi may waxee moom mooy ne wax faj faram fàcce faj bokkul ak wax du ñàkk fayda diw bam ko violé diw bam ko defee nii diw bam ko naawee bañ ko tëddante même télé yépp loolu la ñuy wax loo xam ne nee nañ olof nee na dog bu dul mokk duñ ko yàq kenn xamul loolu mais il faut ñu avancer xiif gi ci dëkk bi ma ngi fi mm-hmm. néew di doole yi ku fi ku amoon tey instant bi dépense 2000 francs jommi nga àddina bi métti na te chaque jour damay appuyer ci nit ñi ne ñu génne azaka sama vidéo bu mujj rek loolu laa wax mhm. maa ngi toog di ko wax ñuy reetaan ma ne lu tax ma xam ko sama baay bu baax bi da koy def mhm. azaka loolu force la dafa war a génn mhm. boutique yaa ngi tàkk ci laa génne woon saraxu ceeb beeg yooyu yaa ngi tàkk marché yi ñu ngi toog di lakk nit ñi ñu ngi leen di rey comme xar ay xar yaa ngi dégg déegu ñaaw sarax da koy fànq ku ne xam na ne tabaski lu muy rëy rëy rëy rëy nit lañ waroon a rendi mm-hmm. ba dernier moment intervention am mm-hmm. intervention bi lan la kuy mu baax mu làggiwul gémmiñam xeeñul pattul ba pare dañoo manqué renseignement ci suñu diine tey si tey da ngay gis koo xam ne tout tànk xëy na dee biir këram xamu ci dara lu muy jooy yëpp mooy nan lay def néew bi imaam ba ngay wëri xamoo ko xamu la mm-hmm. affaire yoo xam ne. amaana sax daawoo jaar ca mooy wax ji Sénégal dañoo néewal mbir mi néewal mbir mi émission diine yi xoolal télé yëpp wàññeeku na. diine ki ci saxoon dëgg muy Iran Ndao yàlla def mu feebar jamono yi ko yàlla wéral ana beneen émission diine doy na waar li nga xam ne moo am extérieur hmm? fekk ya fa xew modèle ya fa xew a star ya fay def yooyu la ñuy appliquer fii Sénégal ñu ngi sant yàlla nag ndax mhm. pays laïque la mhm. ñu ngi ci bokk ak suñu mbokk chrétien yi ma leen di nuyu de passage samay majeur client ñoom la di sant bu baax ci ñoom mhm. tey jii rek am na ku ma ci jot liñ jëflante macha allah dégg nga pays lay la te respecté nañ ñu. Mm. ñu nit respecté nañ leen. musuñoo jàmmaarloo di xeex te yàlla bu ñu yàlla wan loolu. waaye yan nañu yàlla tàggatal ci seen maandu. Mm-hmm. dégg man daal dama jàpp ne réew mi dañ ko war a sangat la sëñ Cheikh tijaan waxoon. mbaa mu sange boppam deret. boppam deret ji waaw ma ngi ci. xew ngi ci de. dañoo war a ragal te ragaluñu. Mm-hmm. fii nga toog nii di wax sax assuré wu. loolu mooy ragal yàlla nit ñi dañoo jàpp ne ya ragal yàlla këpp këpp nangam nangam nit ñi toog ngay non ragal yàlla mooy nga gëm ne one minute yàlla mën na la ci def lu ko neex mm-hmm. nga bàyyi ko xel ba doo wax sa moroom lu ñaaw nga bàyyi ko xel ba boo gisee néew di doole yërëm ko ngir yàlla jooju tax mm-hmm. bàyyi ko xel ba bul wax sa nawle te léegi ren sa nawle dafa xew nit da lay romb fekk dee na bu yàgg ndax xam nga lu tax taala dis gor nga teg ci moom baatam yu ñaaw dem fa muy sagoo hmm. dem fañ ko xamee dem fañ ko nawee gor ay tànkam ñépp toog naan pat moom de nee na nàngam moom taala di dem di ñëw fekk deena bu yàgg waaye nañ bàyyi tamit place boo nekk boroom dàq la fa nga continuer di wut ñaan danga may déglu Bougane Gueye Dany ba ko Sidi Lamine dàqe bu mhm. toogoon di wut ñaan ma nga fa ba tey waaye dafa génn wut tele ni moom di doxal ni moom eh, ndab ba lañ cee yëkk dara dañ ciy def omo ak eau de bomb ko ba mu set bomb ma day metti nag bala ngaa baaxle foog nga yàqule mhm. il faut nit ki comprendre loolu te réalité àdduna la dund bu baax ci dundu doomu aadama déggoo tubaab danaan avant avant comme ni ñuy wax bala ngaa rafet il faut nga souffrir ñoom noonu lañ koy waxee ñu dellu ne bala ngaa omelette foog nga toj nen yooyu yëpp ay wax la mm-hmm. mais dama gis ay nit yoo xam ne nga nekk ci palaasu nit luye fa mm-hmm. di fa liggéey borom ne la dama soxla place bi ngay ñaanlu pour toog fa yëfi dof la place <laughs> baay màbb sa kaw nga dee bu baax a baax parce que sunu borom ci ay geste lay waxi nit ñi indiwut làmmiñ kon geste bu muy wax fexeel dégg ko. Mm-hmm. loolu nag jege jege suñu borom dëgg moo la koy may. woolu yàlla dëgg mooy tax bu xar mi mbéyee nga xam li mu wax. Oh. man sama foor mooy duma xëccoo. Mm-hmm. barki alxuraanu karim lu ma am fii la mu fekk. Mm-hmm. lu ma nara xëccoo man dama naan du sama affaire. dégg nga client yi ñëw ci yow tamit bari na ñoo xam ne du seetlu bi kese sax dañuy soxla ku leen appuyer ku leen gëm. parce que nit ñi torox ci seen biir kër yëpp seen yaay gëmu leen seen papa gëmu leen seen mag gëmu leen. te sànq feebar bi gën a garaaw ci àdduna muy stress. mooy stress dafa baax. te boo waxtaanul du deñ du wér. du deñ man bi ma fi demee Maroc maa ngi jàkkaarloog ay nit yu mag yoo xam ne ay spécialiste leen ci wàllu wér-gu-yaram dañ ne stress li gën a tuuti li muy def ci nit mooy sa yuur gi lay def ay taat looloo gën a tuuti ci li muy def. parce que ngay dem ba dootoo mën a xalaat. dootoo mën a xalaat yow doo nekk. après nga nga nga nga nga nga vide comprendre loolu nag dinaa ci maye benn secret bu baax mhm. xobu karasol pour jigéen ñi mhm. ku ci mokkal faatiya mhm. da ngay jël ñeenti xobu karasol da ngay jàng fukki faatiya ak benn def ko tijan boo koy naan da ngay nelaw soo koy naan da ngay nelaw te loolu dafa faatiya ak benn ak ñeenti xobu karasol nga defar ko tàngal ndox comme tee mhm. nga naan ko soo ko naan dafay suufle sa koor bi yëpp sa cerveau bi lay gën a defar parce que am na jigéen ñoo xam ne dépression lañ nekkee ñu ngi si biir kër yi bien li dal <laughs> suñu mbokk mi Nabou daal dañ ko war a soutenir dañ ko war a soutenir mhm. parce que boo bëree wax duñ jël sa mbir au sérieux comprendre te loolu noonu mooy li ma la wax léegi dangay nekk ci sa biir famille di góor góorgóorlu fekk gëmuñu la mhm. loolu dalay sonal léegi yow ñi la gëm ñoom ngay def mbokk mhm. parce que nit dafa soxla ku ko ku ko ku ko yëg ku ko yëg ku ko yëg man loolu li ma defar ci sama góor gi loolu ci la bokk sama papa bi may bi may bi may déglu may wax wallahi sept laa am barki Cheikhu Tidiane sept ans laa am lu ma ko wax góor gi def ko cëng ba ci xale bu ndaw bu ma doon àndal indi euh, handicapé la woon di raam daan ñëw suñu kër di ma seet mu ñibbi ma ne ko papa yow su ma lafañoon doo ma faj baal leen ma ci kàddu bi mu ne ma France laa lay yóbbu ma ne ko sa xaalis bi de jaaxal na ma doomu jàmbur ji di raam guddi bëccëg di ma seet si mm-hmm. te doo ko faj wallahi lazim dafa yeewu woo yaayu xale bu jigéen bi mm-hmm. ne na dem Thiès wax lu ñuy opéré nit pour mu am ay beeke mm-hmm. yaa ngi dégg maam Liss Mbaye mu ñëw ummi Ndiaye la xale bu jigéen bi tudd lu rafet la ñu tudd seen tur dara nekku ci ba fii may waxee yow sama morom la bekk yooyu sama papa ko wutal te bi may wax loolu man sept ans laa am am na ku ñëwoon ci sama yaay di fa liggéey su yekkee añ du lekk hmm? waaw su yekkee añ rek moom du añ te boobu li ñuy togg kër ga ndawal dafa bëri ma ñëw si waañ bi approché ko mu wan ma siiñam bi ne ma dafa def choc oh. amul ay bëñ dama waaxu subitement comme kuy wax ak sa jëkkër walla sa morom ne ko papa diw amul ay bëñ muy waaj di dem Paris ne ma wool ma ko mu ñëw toog mu ne ko demal laajte bëñ ñaata la wallahi keroog dëj ba jooy na fa ba sonn te loolu ëpp na juróomi at si ginnaaw dégg nga loolu mooy gëm gëm sa doom waaw gëm sa doom nit dafay toll foo xam ne li ko yàlla di jox moom mhm. kese la ak moom yow soo ko gëmul mooy ku mel ni xam nga bàyyi faali boo mhm. nekkee ci xaal boo ko nangulul dalay rey am lu werante sax nag moom dafa am nit ñu mel noonu bu mhm. leen defal dara mais gëm leen gëm leen déglu leen waaw bàyyi leen ñu développé li ñu bëgg a développé mhm. yàlla ñëpp lay waxal de effectivement ko effectivement yàlla ñëpp lay waxal ndeysaan macha allah soxna Zeyda li ngay wax fi mu toll nii wax dëgg yàlla fi mu ne dafa laaj dafa laaj dégg ndax fi mu ne ak dégg ngay waxtaanee fi mu toll nii li ngay wax def nii fi mu ne du du ndax man da nee naa du émission waaye jotaay la boo xam ne fi ne ay message ñi ngi ciy génn yoo xam ne defe naa ni kenn ku ci nekk ku ko bàyyi xel ku ne incha allah rabbi bu soobee yàlla suñu borom mën na laa dimbali ci lu ci lu bare bare bare bare waaye dafa mel ni ñu bëri fi mu ne ñi ngi topp di laaj sa numéro de téléphone wax dëgg yàlla ñoom itam internet yi nga xam ne ñi ngi seetaan mm-hmm. macha allah man leen soxna Zeyda ka moom it bu ngeen ko bëggee jot mën ngeen ko jot ci numéro bi nga xamante ne mooy 77 729 mm-hmm. 40 96. mën naa joxe beneen wala beneen wala fixe waaye daal fi fii ma toog nii bi ma jekku daal. mooy bi nga xamante ni ba ma ko xamee ba tey. defe naa ni mës ta soppiku. déedéet <laughs> su ma juumulee. waaw bii defe naa ni mës ta soppiku. te wax dëgg yàlla ci la may woo ci laa koy woo. Mm-hmm. te moom ku mbooleem koo xamante ne soxla na Zeyda sax man bu ma woowee man numéro Zeyda bii laa yor boo xam ne moom laa mën a mën a mën a joxe. Mm-hmm. kon nag yéen ñi koy seetaan tamit yéen ñiy laaj numéro wax dëgg yàlla mën ngeen jël numéro bi mi ngi noonu 77. 729. 40. 96 mooy numéro bi nga xamante ci ngeen ko mën a jotee incha allah rabi te nee la fi mu nii boo ko jotee incha allah defe naa ni la ngay bëgg di ko mébét di ko yéene tamit sans borom xam naa ni lu mënul lu ci dugg mm-hmm. ndax nag yàlla daa dogal fi ne dafa bëgg lu neex dafa bëgg àdduna ah. waaw dafa ci lañ nekk tam te bëgg àdduna dafa war rawatina wallaay wallaay li li waaja waxoon mm-hmm. bëgguma moom laa miin wallaay ndeysaan leneen waaw macha allah parce que suñu mbokk sëriñ si li ñu yàq dafa bari il est temps am ku leen euh, défier bu baax a mm-hmm. baax a baax mm-hmm. parce que léeg-léeg danga ciy gis ay waxi wayadi yoo xam ne yow doo comprendre mm-hmm. dégg nga ndax bu fekkee ne fukki nit dañuy gas fukki nit di suul wax day bëri waaye pënd du am président de la république sax jàppale wuñ ko mm-hmm. danga fiy jox nit marché du ci def la ca war fii rek nga boo génnee tukki mm-hmm. ci ngay xam ne dëgg Sénégal li ko tardel ci ñun la mm-hmm. xew yeeg yebbi yeeg mboosoo yeeg dajaloo meeg te lépp loo xamante ni man de man maay wax lépp loo xamante ni nekkul lu toll ni màggal nekkul lu toll ni gàmm mhm. nekkul lu toll ni ziyaara mhm. nga xam ne nekkoo fa naan maa la jox nangam yaa ma joxalante nangam mhm. yàlla rek moo tax ñëpp di def wax dëgg yàlla loolu lañ xamoon te ñu ngi bëgg a wàcc yoon waaw dëkk bi nag daa amul kubéer. torox <laughs> ndool yi dafee bari. loolu doy léegi nag loolu moom xam naa ne fi ne bu soobee yàlla loolu moom fi ne faaw tam ngeen wut ci pexe ndax yaa ngi koy wax léegi mu bokk na ci ñaari yoo xam ne bëggoon naa ñu waxtaane ko bala ñoo yëkkati jotaay bi mm-hmm. waaye man defe naa ne dafa mel ni adduna tamit ñu ngi ba nga bëgg a xamee ndax am na ku bind ci sa tiktok bi mi ngi laaj na ndax kii du man man a wax dëgg mm-hmm. yàlla man a mm-hmm. waaw walay maa ngi nii macha allah kookan la ku bind ah, ma doon ndax koo nëbb waaye daal xam na sama moom ah tudd na sa tur ne ma waa kii waaw dëgg la. man waaw boo nekk bu nekkee. yow man na ko tuur déedéet. man bu nekkee yow dafa war a nekk yow. Mm-hmm. ndax yow bi nga may tatagal ci presse. booba bu may toog ci chaise dañuy teg ngegenaay ci suuf booba jamonoy Sidibé la ak yow mi yaa ngi dégg waaw kon xam nga loolu xale nee naa la ba tàyyi bu ñu sukkee ci ndabam mm-hmm. palaat bu rafet bi taxul fooju ginaar bi nekk ci biir moo tax amul benn restaurant booy dem ñu jël booli jox la ko mm-hmm. déedéet palaat su yem lañ lay defal mais palaat ba taxul nga sukk ci mm-hmm. pooju ginaar bi ci ne moo tax nga dugal ci sa loxo mm-hmm. waaw ndax xale nag bu loxoom setee mu mën a bokk ci ay mag dégg nga góor mooy li ma la wax léegi rek dañoo rey góor ñu bari ndax yàq der wax lu ñaaw. non parce que bokk na ci man benn question bi moom dama ne woon ci yi ma ñu may mujj mooy ñaar yi ma la xam ne moom laa ne woon faaw ma laaj ko bala maa def parce que ñaar yooyu mënu ma def émission te du ci def. Mhm. parce que tey jii actuellement jamono dafa dafa dafa doy mhm. wax ji bëri. Mhm. coow li bëri. te lépp li ci ëpp majeure partie. ci sëriñ si góor ñi. la jóge problème bi yam ba ñoom sëriñ si góor si fii nañu commencé ñoom di defante seen biir. bu baax problème ko jóor lan alalu àdduna la wala fàtte ñoom li ñu doon wala fàtte ñoom li ñuy woote la. seen coowal góor jigéen yi ngay wax mhm. borom caaya yu bari ñoo leen di dooleel fii ndax lan xiif gu metti ak ndóol ak ñàkk ak bëgg lu sa nawle am te amoo ko est-ce que comprendre mhm. loolu mooy seen voix bi gën a gaaw est-ce que yaa ngi dégg mhm. que ça yàgg ngaa dégg ma ne la taala man bëri na loo xam ne duma ko nangoo wax ndax sama baay damay déglu ah, dégg nga ma wala dégg nga ma ko benn dafa jot de fippu dafa jot wax dëgg dafa jot. da ngaa taxawee nag taxawaayu góor góor yi ñu yàq ndax seen propre intérêt dafa war a jeex te bëri na ci nag ñiy génn ci tele yi nii nii. Mhm. barki yonent bi li ma la wax léegi jigéen xam nga mën nañ koo laaj sangub ceet mhm. waaye góor moom mooy taxawal néew. ku ne xam na ne la waaj a waxoon bu ma feebaree benn mbooloom góor bu ma set si sànni ma rek lañ bëgg am na ku ko doon wax waaye bëri na ci laa la wax. Mhm. yéen waa presse bi nii wala yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen seet borom xam naa nag dinañ daw jàngi ci ko balañ leen a bett. xam nga sang néew moom waxuma la tarixa di wala tarixa di mm-hmm. loo xam ne ñëpp a koy def laa la wax benn par benn. Mm-hmm. waxuma janaaba de néew laa wax. dañ ko du ñeme sax ba di ko sang. Mm-hmm. xamuñu bet te loolu xam nga xàq la. loo ci juum boo dekkee danga koy layoog borom. defar néew mooy li gën a sacré. ak miraas sëñ Alpha mi ngi woon mi ngi mi ngi ci yëf moom it bëgg dugg ci direct bi la bëgg fi mu toll. Mhm. macha su baax a ngoog. man maay wax jaañ mhm. ñaar la. Mhm. dafa fekki naar waa mbaa naar fekki ko. ku baax ku bëri xam-xam. mooy sëñ Alpha Diagne yal na yàlla defal ko jàmm. ku baax ku bëri xam-xam. te leer ma man mii man du waxantu. du wax kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma la mm-hmm. dama ne la mm-hmm. li fi sëriñ seeg góor jigéen ñi bëgg tabax fii mm-hmm. maa koy toj man maa ko dul nangu parce que damaa am ay doom yu góor war a am ay sët ñu ñëw xaalis yu bon yi ñuy dugal ci dëkk bi moo waral sacrifier jigéen ñi dee xale yi dee xale yu ndaw di dee pour lan waaw moo leen ko jaral nañ dem jàngi xam-xam xam-xam yoon la dañ koy jàng asraara maanaam mbir la moo xam ne góor yàlla bi dafay liggéey ba tënk ko mhm. muy turu yàlla yoo xam ne danga koy dar bu adab ko mu mhm. génne la li nga xam ne loolu nga war a am mhm. mais charien ñoom dañ cee xamul ñaar dërëm est-ce que comprendre man maa ci gis waa joo xamante ni buy dem ci palaato yi bu fekkee dafa génn ci duus nii doo ko gis sax mu jàpp maa ko teg sama bët te bu demee wax yu rëy yu ko neex lay wax yu ko saf pour lan loolu wala affaire bi dafa am ay ay ay ay taaxuraankat ci biir yuñ comprendre wala la jar na laaj de parce que fi mu kenn xamatul li xew lan la dégg nga man li ma yëngal daf ceeb bokk Zeyda papam deena sans froid jeex na fini c'est faux c'est faux mooy di déstabiliser jigéen ñi di leen toroxal di leen minimiser toog ak jigéen dig ko takk lekk alalam dem sa yoon wëri keneen mbaa toog di damoo naan jabar yu bari man ku ma takk ma fase dañ dañ ci faju ji seen góore yi parce que jigéen bu demee foo xamante ni bànneex moo ko fa yóbbu yow sëriñ nga moo am xaalisam ñëw dugg ci yow soo mënul dara du dem yoonam. Ah, waaw waaw nga toog di ndamu naan damay takk ak teg leen ci <laughs> ci waaye nañ faju ji moo gën. kon ñoom dañoo tawat ba noppi. ndoxum si ci mi ngi leen bëgg a rey ñoom ñu ñu bari nag laa la wax. tey woote li war a faj barki alquraanu karim. ñi ñi ñi témoigné dinañ dugg jigéen ñi nga xamante ni dund nañ li ma wax dinañ dugg mbaa ngay jëflanteek sëriñ mu dugal sa xaalis dootoo ko déggati dootoo ko gis oh. soo ko gisee day nekk ci palaato yi di fecc ak yu kenn xamul mais nañ wax dëgg te dee ah, ah. suñu borom li ma la waxoon sànq dama ne la sekk du sant buñ ne la gor sekk mm-hmm. gor sekkere lañ wax mm-hmm. loolu la olof waxoon mm-hmm. diw de gor sekkere la ñu dagg baat ba ne diw de gor sekk la gor mënuñ la ko assuré te mënoo denc secret mënul nekk waaw ku yàlla nattu nag moom loo jiin ci xare danga koy xeeb mm-hmm. waaw ah, waaye patt ak organisé mm-hmm. ak dem jàngi mm-hmm. gëstu luy rafetal sa njaboot xalaat gis nga am na alal joo xam ne boo ko lettee dëttu lay doon bu nekkee sa biir nekk deret doom joo ko sotti musiba naaru laay lay nekk di wër di dagg ay musiba baax na ah soxna Zeyda macha allah mu doonaat lu lu am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla def naa ni message bi moom dina jàll te def naa ni moom xaaj bi ñi ci ne bokk danañ jóg fi ne nag yëf yi warta metti ki mooy ki ci ki ci ne mhm. ku kon warulaa metti waaw dëgg la parce que sañ nit ki dem sañ na wax dëgg yàlla mhm. wax yëg-yëgam mhm. wax tolluwaayam wax itam li mu gis parce que dégg ngeen Zeyda li muy wax li mu gis lay wax waxut loo xam ne da koy créer wala da koy non non non te li muy wax itam Mm-hmm. am na ay preuve am yu leer yu tegu yoo xam ne ku am loo ci sikki sàkk boo ñëwee mu wan la preuve yu leer nañ mm-hmm. kon defe naa loolu tam lu wér loo xamante ni parce que tam defe naa ni warta doon soxna mm-hmm. ak ñàkk waajuram bi mu ñàkk waajur ëlbatiku waa toog yi dugg ci lu yoonu kenn am na lu ko doy sëkk te defe naa ni ku dégg kàddu gi mu waxee xam ne fi mu toll ni mooy li ma ko wax sànq ne ko xëy na kàddu góor ga woon donte bi nga fi nekkee. Mhm. dafa am loo xam ne wax na ko. te man mhm. yàgg na ma koo wax. Mhm. sama bàyyi mi ngi may déglu. te xaritu bàyyam la woon. dëgg la gannaaw na góor gi newutu fi wax dëgg yàlla ci saa yër. la mën a wax ci li ñu xam. waaye defe naa ne mi ngi fi. ndax xam naa li may wax man. kon defe naa ni war na koo mën a nekkal fii mu nekk ba dëgg moom. gannaaw alalu suñu borom la woon kàddu suñu borom la woon. bu ko gisee tam mu wax ko. am na ci plein droit te defe naa ni kon war tamit kenn. kenn ku ci nekk alaaji taala boo ko déggee rek am na ku dee ñaari wax duñ fenqaloo kenn du tànt ci sa kanamu baay mm-hmm. sa baay ak sa kilifa bu lay jox mm-hmm. pour su fi nekkatut ku la xool ci mm-hmm. moom gis ko ku xam alaaji Moustapha Ka xam ne du yambar du yaafuus <laughs> du irresponsable ñuy sant yàlla bu baax nag ba ñu yàlla defee ñu meññ ci moom am ay culture yu ñu donn ci moom mbindum xam-xam ak jëmm ak baatin soog di dugg mhm. est-ce que comprendre nga kenn suukarul sama kafe mhm, dama ne góor jigéen ñi laa wax mhm. borom caaye yéen leen dëggal man maa wax li kon yi moom fi ne ñoo may na ci ñoo xam ne dañuy toog di saboter diine nu mu leen neexee di jalgati loi charia nu mu leen neexee ngir yenn million yu ñuy xaar ak yenn lu leen génne ci seen ñàkk gi man maa wax loolu loolu nag di feeg mi ngi sax di déroulé ci àddina bi ngu musiba yi duñ fi gaaw a jóg parce que yàlla dafa bari lu mu bañ ci loolu ba jël ab dëkk ëlbati ko ci dégg nga ku ci yàlla nattu nga nekk ci ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla defal sutura yaa ngi dégg mm-hmm. ki nga xam ne nag danga ne kilifa nga mm-hmm. dangaa askanaloo sëriñu diw mm-hmm. dañ laa xame ci diw ak diw mhm. kooku laa ne moytul sa bopp mbaa fett dal la loolu man maa ko wax ah, loolu koy dafa leer <laughs> ndax yow taala yow xam nga ne sëriñ tuubaa ñëpp ko bokk mhm. maam Baye Niass ñëpp ko bokk Alaaji Malick ñëpp ko bokk mhm. am na ci loo xamante ni soo amee noo doxalee yaa ngi dégg martaba dalay dal loolu force la loolu force la loolu force la man nekkuma fi di défendre ay woykat ak yooyu de loolu ça ne m'intéresse pas et se mhm. su ma taalee télé bi mu nekk ci ma xool ko su ma amee lu ma ci xoolul ma jappe mhm. yaa ngi dégg mais lii dafa nekk benn langue goo xam ne dafa am ñuñ ko bokkal mhm. ku ne di ci bay waar caay-caay gi bari ci nit ñuy jàmbat bari di la woo jox nañ jox naa diw jox naa diw jox naa diw mm-hmm. mais loolu dafa war a dakk hmm? dafa war a jeex nañ rafetal mbir mi séentu asamaan jarul buuxante man xaw ma lépp mënuma lépp damaa mën lii keneen mën li mm-hmm. mais ñi euh, till yi sàngoo deru beñ nekk ci biir dafa bari teefanke yi <laughs> xale jigéen yi nag laa gën a yërëm nag xale jigéen ñi liñ waxul moo ëpp liñ wax dégg sa WhatsApp bi li li ci ne moom defe naa ne. sëriñ yi songaateeg yëpp a ngi ci biir nga seeti sëriñ pour mu ñaanal la mu. song la tëddee la. Ah. barki yonent bi loolu pour lan la ñun yaay yi dañ ko war a bañ. avant ngay doon sëriñ ak jigéen bi nga waxee fi kàddu jigéen bi moo wax. waa si kàddu ah. jigéen bi wax na. Hmm. bu baax ndaxte tamit suñu doom yi nañ leen sensibiliser. surtout man nii yow xam nga ci dara xale du fi ñëw te àndul ak yaayam. Hmm. nanguwuma loolu ah, ba ci rajo ba boo wootee nekk mineur dama naan la jëlal ci suuf duma seetal mineur parce que loolu mooy détourner xale yi bu baax mosuma nangu xale bu ñëw ci manta àndul ak yaayam mosul mhm. am ay anecdote yu baax laa ci am su ma nangu woon xale yi dañ may dëkkal mhm. du ma fay jànq mhm. mais damaa xam yaay dafa métti man sama doom bu yendoo foo xam ne neexuma sama bët yi day xonq kon duma fattoo mu jàmb duma ko def dama lay digal noo jubóog say waajur ak moo nekk ak say waajur comprendre nga mhm. waaw xam naa ne nag mhm. li duuf ci nag bi xajul ci cin bi xanaa kay fi ne bi ma te tey émotion laa waxee waaw parce que lii kàddu dëgg la la moo tax man bi ma koy déglu di ko déglu ba yàgg ma ni lii mhm. def naa ni warta naqari kenn wala ku mu naqari da nga te ku ci nekk fi mu ne ndax buñ la xamee ñun danañ ci jóg fi ne def xar ci suñu tànk tugee xeex bi ngay xeex nii xeex bi ngay xeex nii danañ la ko xeex Mhm. parce que nag ñun tam lu mën a xew mooy ay jullit lañu. Mhm. te gëmuñu lu mooy yàlla yonent beeg Sëriñ Tuubaa mhm. mag ñu baax ñi. ay nitu diine lañu. te mooy li ñuy wax booba léegi li xew ci réew mi mooy li fi xewul woon dañ bëgg ko fee xewal. bëgg a jël dëgg teg ko ci suuf. bëgg a jël alal wala àdduna wala bakkan teg ko ci kaw. te loolu fi mu tey nii tey jii xeer la boo xamante ni yow mission la boo xamante ni tey jii yaa ngi ko war a dox sa wàll woo xamante ni. te ku ko dégg ku ne. tey nitu dëgg mm-hmm. boo jógee dañ ci ànd seeg yow fekk si la fi beneen question bi ma ci doon bëgg bi ma bëggoon man laata ñu yëkkati jotaay beneen mooy mm-hmm. dem gi nga xam ne génn nga ko dem Maroc jàll feneen Mhm. ci gëstu xam-xam la woon. Mhm. wala mission la woon mission wu paa bi parce que dafa taxaloo ak mission wu. ak mhm. demu paa bi. man loolu bokkoon na ci li ma bëggoon mu ni ma ci tuuti leeral tam. ne gëjoon nañ laa gis parce que dernière émission bi nga fi génnoon. ci nga wax ni gëjoon naa génn waaye yëpp nekkoon ci ay mission la woon. ba joxe bi gars yi gis résultat yi. donc mission bi mujj bi nga xam ne mooy yoonu Maroc beeg fi nga ci toppoon yëpp ak de nu mu nu mu demee. xam-xam la wala lan la woon tam. waaw macha allah yàlla dogal na nag samay déplacement lu ci ëpp outil ji ci la bokk. Mhm. découvrir ci la bokk. saytu lu gën a baax ci la bokk. Mhm. parce que boo demee génn. Mhm. boo ñëwee di nga xam li sa kër manqué. ak li nga war a réparer ci sa biir kër. gëj génn bi lu ci ëpp li koy waral man bokkuma ñi nga xam ne buñ gisee musiba dañuy jibile man fu ma gisee lu bon mu ñëw ma wax ko yàlla dogal ko. daf may def ay jooy émotion la may def. ndax damay wax ne yàlla mi may wan. damay bëgg mu wan ma liy saafara mbir mi te su ma wanee liy saafara mbir mi yan nañ ko appliqué te des fois ñett yooyu day xaw a yéex a daje mhm. comprendre nga ndax jamono yu liir yi laa fi waxoon mhm. dama ne ñi takk te amaguñu at mhm. nañ def ñaan ñi am doom wasin nañ def ñaan ñeenti fan lañ ci teg hôpitalu Tivaouane bi lakk ay yaayu souffrir mm-hmm. loolu metti lool yaa ngi dégg mm-hmm. bi ma génnaatee maa ngi wax naan maa ngi nuyu sama papa mi ngi bitim réew mm-hmm. yàlla def ñibbisiwul kooram lañ indi yaa ngi dégg te loola it gis-gisu famille la liñ ma wan ci sama papa samay mag samay rakk ñoom xam nañ ko ba ci liñ ko muur ci kawam wan nañ ma ko te damay wax ci samay vidéo chaque jour ne kii gis moo gën a sonn hmm. parce que lu nit ñi di jooy benn fan moom daf koy jooy deux semaine avance loolu chaque jour dama koy wax hmm, hmm. te nit laa tamit yenn malheur buy ñëw nga di ko gis di jooy mënoo ci dara ñaan yàlla nga mën kon sorxo sorxo geeg yëfi ndaanaan yeeg bëri na ñoo xam ne danga fiy gis fii ay nit wóolu nit une semaine yu yàlla dañ koy tegale di ko wane ci ay xew lay nekk ñu koy ndamoo te yow nga war a toog liggéeyal jaamu yàlla yi recevoir seen xaalis mais des fois nag nit ñi seen bëgg-bëgg moo leen di sonal. Hmm. dañuy gis nit bëgg ko ndax fi mu ne noo mel ñu bëgg la. yàpp lu mu nëb nëb weñ ñu biw ko. waaw moo tax nag dañuy ñaan nit ku nekk rek yàlla na daje ku ko yàlla booleeg. Hmm. te man de képp koo xam ne yàlla naruñoo boole yàlla bu ma la gis yàlla bul ma woo yàlla bu ma jot sa xaalis. Hmm. di ñaanal ñëpp nag mm-hmm. di wax àddina bi soxla na ñaan waaye yaay yi nañ dellu téye doom yi mm-hmm. jëkkër yi nañ dellu téye jabar yi waaw loolu daal maa ngi koy digal nit ñi mm-hmm. dégg di sàkku ñaan bu baax a baax a baax nag ci ñi nga xam ne ña ngi ci sama ginnaaw te xam nañ seen bopp bu baax waaw damay sant yàlla nag ndax ku newul ñaar di nga ne ñett te man sant yàlla dolleeku naa waaw nañ ma ñaanal rek gudd fan di ñaan tamit yàlla mi nga xam ne hmm. moom la ci ñëpp moom lañ làqu hmm. yàlla na bañ a yàq liggéey bi nga xamante ni kilifa yi bàyyi nañ ko fi hmm. te loolu dañ koy teg dañ koy diis yàlla buñ ko diisee yàlla ba pare nag mhm. ay ismu jalaal lañ leen di teg. <laughs> loolu moom. man maa fiy dëggu fii génn daane ku defati nangam. Mhm. musiba nangam dina la dal ba ñëpp di la dégg. man maa wax loolu. dafa jot de waaw dafa jot de ndax lenn li tamit wax dëgg yàlla lekk ko ci ndab li di ci xëpp suuf dafa ñaaw. Mhm. nañ bàyyi yàq gor. man daal loolu moom surtout loolu. nañ bàyyi yàq gor. gor gor ñoo war a ànd. Mhm. ñu sant sekkere mhm. sama sant wi daal neex ba déedéet moom la moom mooy waxtaanu tey bi. dafa dafa neex. mooy waxtaanu tey bi <laughs> xam nga nit ñi dañ koo wax te xamuñ fa mu jógee xamuñu fa mu jógee. dafa bëri lu dafa lu ñu lu ci baatu olof yi nag. waaw waaw mais nag sant yàlla. Mhm. sant yàlla di wax daal alhamdulilah beneen yoon. di wax nag li nga xam ne yàlla amu ko sax. Euh, ku ko bëgg da ngay soññ. yàlla kenn maanaam nekkul ñëpp ko toppandoo. nekkul ñëpp ko gëmandoo kon man Zeyda imposé wu ma kenn pour nga gëm force wala nga bëgg ma mhm. force mhm. Mhm. waaye samay bagage moom ñam xam la macha allah sëy maa ngi ciy dox néew kattan maa ngi ciy dox maa ngi seet di faj te duma seetu jaxase sëriñ si surtout liñ tàmm léegi li gën a yomb diw dëmm la diw dëmm la jël kër ga yëpp tojalante leen seeni bopp gars yi dañ koy def waaw mais sant yàlla yal na yàlla yokk jàmm te yokk sutura jërë ngeen jëf jërëjëfal ko bu baax a baax sant ko gërëm ko wax dëgg yàlla ndokkeel ko ñaanal ko yàlla itam suñu borom doole koo taxaw bu baax a baax doole guddal fanam doole wéral cër mu yëgali mbooleem yéene yi nga xamante ne rek wax dëgg yàlla naa ko askan wi wax dëgg yàlla waaye sant itam bu baax a baax mbooleem internet yi nga xamante ne ñu ngi doon suivre à travers Salam Vision ci biir jotaay bu mag bi nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy seen jotaayu xam-xam bi nga xamante ne déedéet déedéet du doon problème soo ko envoyé waaye itam sant bu baax a baax macha allah rabbi mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi ci jamono bi ci live bi wax dëgg yàlla ci tiktok bi ci page am bi nga xamante ni mooy Ya Zeyda Ka macha allah ñëpp ngi topp naan ngir yàlla seetal ma si vous plaît seetal ma waaye tey du woon bésu seet mhm. waaye bés la boo xam ne doon siyaar si waat doon ndokkeel si waat mhm. doon feddaliwaat suñu kóllëre mhm. diggante soxna Zeyda ak askan wi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel saa su ne moom lañ doon fexe nii ndax di ngeen ko bërki dem boo jaay mënul denc papam ñaan gi ñeent fukki guddi sax amagul mu génnaat nii waaye li ko tax a génn mbir la ñun xëy na am na luñ ci xam am na lu luñ ci yëg yéen itam kenn ko ci ne ku déglu jotaay bii du ñàkk ne di nga am yëg-yëg boo xamante ne am nga ko ci waaye itam képp koo xam ne dem nga Salam Vision yi tamit insha Allah boo ko dégloo tamit attentivement. defe naa ne vidéo bi yëpp. soñña la. ñaaxaat askan wi. ñu bañ a topp suñu bakkan bañ a topp àdduna ndax alalu àdduna bi nga xam ni fii lay yem. kenn deewagu fi ñu jël la boole la ak la nga am dugal ci biir bàmmeel. déedéet déedéet. juróom-ñaari mètre par fan. misk kaaba ak yamuy àndal. ñu xaaral la la la la